man maa ngi tudd maam Khady Fall dëkk Grand Médine Kër Massar dend ak honorable député bi nga xamee ni moom moo xam valeur u Macky moo xam lu Macky Sall di jëriñ Sénégal moom mii moo liggéeyal Macky Sall muy honorable député Moustapha Meng ndax bu àll bi nee bu moom moo ñeme xuusal Macky Sall ci Kër Massar muy guddi muy bëccëg mu di ko muy guddi muy muy bëccëg mu ànd moom ci ngor Macky it ñu naan ñu ñu ne honorable député Macky Sall it di gor ndax Macky Sall xam na li xam na li ko honorable député defal ci Kër Massar bon nag ñun Kër Massar dañuy sant président Macky Sall di ko ñaanal lii mu bëgg ñu moom day wax sax ay quatre vingt mais ñun dañu bëgg Macky Sall gagné à quatre vingt dix huit pour cent bu ñu toogee mu jël ndamam jël ko ci jàmm ak salaam. baa ngi fi tali yaa ngi fi teer baa ngi fi semi baa ngi fi a ngi fi bon nag honorable député sunu buggee nag ñun sunu honorable député Moustapha Meng ndax gis nañu lim ñu defal gis nañu lim ñu liggéeyal lim ñu liggéeyal ñun honorable Macky sunu buggee nanu bàyyeeg sunu honorable député na ndax liggéeyal nañu Kër Massar defaral nañu Kër Massar moom talul solu talul wut kër talul wut terrain talul wut dara mi ngi daw ci population bi guddi ak bëccëg di daw buntu këram tegu fa policier tegu fa gendarmerie tegu fa dara ku ñëw mu ànd ak yow di la recevoir na nga ge bëggee. lan ngay ñaax ndaw yi pour dem yi nag maa ngi leen di ñaax ndax ñoom ñun sax ay mag lañu waaye ñoom ñii ñoom ñoo war a xool xippi te voteel Macky Sall. ndax Macky Sall li mu def ci jeunes yi dafa bare tey bu dee teer bii ñu ñi fi ne dañuy xeexal suñuy doom dañuy jël employé tey bu dee bu dee leneen lépp couverture universelle yi xale yi gis nañ ci seen bopp bon nag damay ñaan xale yi mag ñi moom ku julli fajar daa dem xale yi it nañu jóg 6 heures du matin dem voté ji ci jàmm ak ci salaam ñu daal di suñu honorable daal di fal Macky Sall wa salaam